mu amoon mbébétu def doxantoom bu njëkk fii ci Sénégal Nathalie Roy amal na boobule visite kii di nattàngoom Amadou Mame Diop gàttandu ko dalal ko ci assemblée nationale bu Sénégal seet si nag di rek firndeel jàmm ju dox diggante Sénégal ak Québec. votre visite est fii ci sunum réew nekk na rafet loolu waaye tamit day gën a duufal coopération ci diggante ñaari réew yi ay at a ngi nii assemblée nationale bu Sénégal ak assemblée nationale bu Québec daanaka sax relation boobu daal lu koy dëggal rek mooy signature bi nga xam ne amoon na ca décembre 2016 ci protocole bu nga xam ne des cee déggoo. te boobu la seet si nag délégation parlementaire bu Sénégal ak bu Québec dinay waxtaan ci ay séance de travail ci ay yu bari. place des femmes gëdd bi ñu jox jigéen ci làngu politique gi yitteel na ma bu baax xam naa ni nag ci wàllu woowee Sénégal am na ci ay expérience yu mucc ayib am na tamit ay jéego yoo xam ne teg na ko ci. ci jëwriñ ju ñu dénk wàllum culture ak communication bi ma nekkoon thème bi nga xam ne moo dellu ci wàllum diversité jëm ci wàllu aada cosaan tamit ak contenu culturel locaux yi yitteel na ma bu baax. ñu rekk xaatimoon ay accord ci décembre 2016. ca loole nag ñaari réew yi war di waxtaan ci ay mbir yoo xam ni dina rek gën a suuxat jàmm ji dox ci seen diggante. déjà ñoom wax nañu ay thématique ci yooyu dañu ciy def ay formation pour femmes yi effectivement jàpp naa ne déjà le fait que femmes parlementaires yi dem ñu am day ay échange d'expérience et de bonnes pratiques loolu aussi lu am solo la dem former wu en leadership ñoom tamit ñu ñëw fi gis ñun li ñuy dundee ak ni ñuy liggéey ak lan moo waral Sénégal tey. mu nekk ci pay yi nga xam ne pay yi gën a dal la bokk ci àddina bi pays yi gën a am cohésion sociale la bokk loolu tamit ñoom tamit yitteel na leen. lëkkaloo dox diggante Québec ak Sénégal war a tax nag ba ñaari réew yi kenn ku ci nekk di jàngat ci li ko moroomam ëppalee loolu di waral suqaliku di gën a am ci ñaari réew yi ci mbir yu bari.